maqaama juróom-benneel adabiya lay faral de doon mooy dañuy faral daji wane ay mënoore ci bind bi lim lamboo mooy risaala boo xam ne ñaari baat yoo dendalee benn bi day fees dell ak tomb benn bi du xam dara ci tomb ba risaala bi pare loolu mooy li muy wane ci maqaama bi hmm. fekk xeeti mbindin yooyu hmm. mu ngi xew ci jamono bi adab daanoo hmm. taalif ci yeneen xam-xam yi xam doole ñuy wax jamono boobu xasrul inhitaat mbindin yooyu ni muy doonee mañar ci wàllu baat duy tax muy ko xamee maanaa yu xéemi dëgg dëgg rawaa solena alxaaris xaaris ibnu hammaam hmm. qaal mu ne xaaris hmm. mooy def riwaaya hmm. mu ne xadartu teewe woon naa diiwaana nadari diiwaanu settantal mooy affaire kitaaba ak affaire waxtaane xam-xam fañ koy defee dama ko teewe woon bil maraaxati ci dëkk buñ naan maraaxa ci fuñ naan maraaxa foofu la dëkk ba nekk tewe waxoon naa ko mu ne mu ngi nekk ci Azerbaïdjan ne loolu ne baram la ci Azerbaïdjan waqat jara te mbir moom daw na bihi ci moom zikrul balaaxa te tudd balaaxa waxtaan wi àgg ci balaaxa balaaxa ci wax mooy wax ji day leer te day déggoo barab bi loolu mooy balaaxa xam nga xàgg lay firi ci luxa dafa mel ni wax dafa am jëmukaay su melee nam war a mel na ñu ne xàgg na ca jëmukaay ba loolu lay nidu dañ koo melalee kii wax mooy dafa bit nga waxam di demee noonu dafa mel ni mooy waxkat war a xàgg ci jëmmukaay xàgg na ca loolu laa nidu rek lakal balaagatu maydaanu nasata bii fa kulluna bi qusuri naan ka naatarifu ba mu àgg rek waqad jara te mbir moom bii ci moom digrul balaagati tudd balaaga waaj ma dal di man ñi nga xam ne xadara teew nañ hmm. min fursaanil yaraahati ci jàmbaari xali mbay hmm. ña fa nekk te da ay bindkat mm-hmm. ñi leen tuddee ay bindkat mm-hmm. wa arbaabil baraati ak boroomi fasaha mm-hmm. ñi leen tuddee ne ay udaba lañ ñu xam ak fasaha lañ ñu xam balaaxa lañ ñoom ñoom la seen gis dëppoo ci ne seen gis seen dëppoo ci ne ala annahu ci naka moom naka luy mbir lam yabqa desul man ku xam ne yunaqihu dana mu sellal al insa insa mooy defar wax jamono bi ko génne wax rafetal ko lool lool lool lool te sukkandikuwut fenn loolu dafa jeex wa yatasarrafu te muy soppatu fii ci insa kayfa saa nu mu sopp bindkat boo xam ne funuunul kitaabati hmm. fànn bu mu ci jël rek hmm. mën na caa doxalee na bëggee hmm. loolu amul bindkat boo xam ne bu demee ba toxal xelaatu jàmbur toxalam ba dana ci yokk taar bindkat bu mel noonu amul waaw kaatibun qadir yutamadu alayhi wala kaatibun qadir yu assiru fil manqooli nii loolu amatul <laughs> loolu la ñu wax wala xalafa déet aji huutu hmm. banda salafi ca gannaaw way jiitu yi hmm. man ku xam ne yëpp te dion dana mu fent tariqatan yoon hmm. xarraa wu daa ji rafet aw yëpp te dion wala mu dajji risalatan leetar hadra bu di xéeg ñu jiitu woon ci ay sonra ak i kuttaab ñaari léeg-léeg nga gis ku ci indi am ne lam yusbaq ilayhi moo ko njëkk génne hmm. waaye jamono bi bindkat bu man loolu xamul hmm. waaw génne aw woo xam ne ma subiqa ilayhi hmm. wala génne leetar boo xam ne gisuñ lu ko demee ci mbind ña jiitu woon loolu amul daal lii mooy seen gis-gis dëppoo wa annal mufliqa ak naka aji dikkee kéemaan min kutaab hadal awaan ci bindkat yi jamono hmm. al mutamakkina karaaji jafandeku mooy ki ngëp hmm. min azimmatil bayaani ci noskaay biral hmm. bindkat yi léegi yi kiñ ci wax naan moom mooy borom manoore mel ni rek balaa wax xamatul na ko kalayaal mu ngi mel ni njaboot alal awaayil yi ci way njëkk ya rek hmm. comme njaboot bu ñu njëkk jala rek hmm. walaw moom na mu hmm. sahbaani waa il fasaxa ak sahbaan waa il ak nuñ ko mën a melalee fasaxa itam dafay nekk koo xam ne day doxalee ci ñu jiitu rek ñu jiitu ñoo koy teete rek xam nga wax dëgg yàlla kaatibun qadir yu assir bil manqool dafa wutee ki nga xam ne naaqilun yataasar bil manqooli ah ñu ne mutaasir bil manqooli moo am waaye mu assir fil manqooli moo am ah léegi waaw. wa kaana te nekkoon na bil majlisi ca jataay ba. te foofu ñu doon waxee ba mel ni ña fa toog seen gis-gis dajee na ci lii. nekkoon na fa këxalun ak am mbañ rus koo ci ku hmm. mooy koo xam ne romb na sodi ba duñ ko tuddee ndaw hmm. waaye àggugut ci say xool hmm. amu ñaan ko saab waaye àggu ñaan sew jaalisun kuraaji jékki fil xaasiyati ca pegg mbooloom xam ne koo xam ne ci sinul ku hóolati la toll mu nga toog ca pegg mbooloom inda mawaqifil xaasiyati fa taxawukaay surga saa gune hmm. fa nga xam ne ñañ fonkut ñoom la seen place ah ñañ joxut ca diggante gune yeeg surga si en fa taxawukaay surga saa gune ya hmm. fa kaana nekkoon na nag moom këlu boobu kullama satta bépp bu soree alqawmu nit ñi fi ci seen yoon mooy bu ñu waxee ba wax ju sori hmm. wa nasaroo te ñu wisaare hmm. alhaj wata tàndarma ju rafet mooy kàddu gu ñuy rafetlu hmm. wa najwata ak tàndarma ju ñaaw mooy kàddu gu ñu warul rafetlu min nawtihim ci seen yoon heure bu waxtaan wi soree lu rafet génn lu demee neneen génn da gis ne moom kii nekkoon na hmm. yum bi uddi xamle taxasuru torfi yi hmm. rogug hmm. ni muy rogee nit ñi wata saamuxu am fii ak yëkkateeku bakkanam ak ni muy def cëlmaayam muy màndargaam xeweel ci ñii loolu day xam le ne annahu naka moom moo xam joxoon aji fireeku la li yamba am ngir na mu tëb mu ne këlu bi duggut ci wax ji hmm. waaye heure wax ji xóotee rek hmm. da nga xam ne du ci noppi hmm. ndax mandargaam daa ko rat yi ngay seetlu ci moom waaw fa kaana nekkoon na yum bi udi xamle taxasuru tarfihi rokub gisam ni muy xoolee nit ñi wa tasaamux am fii ak yëkkateeku bakkanam ak mandargaam nim nawadee gis gisi ñi yooyu nekkoon nañ di xamle ne annahu moom hmm. muhambiqun aji firéeku la hmm. li yem baaxal ngir na mu tëb hmm. da xam ne kii bu gaañi pare du ñàkk a dugg ci waxtaan wi ndax defin day wane luñ namm mu ngi mel ni ganaar rek boo ko gisee muy firéeku xam nga ne tëb la namm moo tax ku firéeku ku tëb la nekkoon na demel nii kullama sotta bépp bu sori al qawmi li ñu fi sotti ci seen yoon ak waxtaan yu sori wana solo te ñu misaare alxaj wat na tàndarma ju rafet hmm. loolu lay firi ci loxo ay kàddu gu rafet la ci jublu hmm. wan nabi wata ak tàndarma ju ñaaw hmm. min naw tihim ci seen i wax seen weer seen weer muxram bi xun li yem baa wa mujram misun te aji jàpp la mooy foodu sa yemuddu kook dana tàllal albaaxa ñañ mooy janaab ni muy def bu bëgg a coru hmm. dangay mu foot jëmm ji hmm. la wuy tegtale ne xam na lum namm rek hmm. wa naabidun te aji fett yabri yi kook dana mu xett anibal ay fett fettkat boo ko gisee mu jël xala di jagal xam nga ne am na lum namm wa rabidun te aji goor la yabri yi kook dana mu sàkku anidal la fettante jamante kat ke bu jëlee fettam xàgg suuf di tiire hmm. xam nga ne xam na luñ nam kon defin dafay wane luñ nam waaw hmm. ah, definam nag wane na ne xam na luñ nam waaw hmm. ah, defin dafay wane luñ nam definam na ne xam na luñ nam nga gisee firee ko détectele waaje tëb ci ganaar waaw ah, ni nga gisee fooru détectele waaje coru ci janaab ni nga gisee de xett fett de teg sa hmm. ba mu àgg rek hmm. <coughs> falamma nusilat ba yu leesee hmm. alkana inu tunkaar yi kenn ku ne ba mu waxee ba laxawante xelam jeex ki naa ne mooy ngise góole rëbb bi xame da ci denc bala mi de génne par benn de fetal moom la ñuy jamoole kana in mu ni doo ki ñëw ci barabu xam-xam am kàddu yu mu denc ci xelam hmm. wax ne moom la ci rotal hmm. kàddu gi mooy comme bali yi hmm. xel mi mooy comme kinaana bi léegi kenn ku ne ba mu waxee bala mu bëggoon wax mu wax ko waxukaayam jeex wa faa atta dal asaka in te delsi asaka inu dal yi ñëpp ne tarat kañ doon wax dégluwal <laughs> waxam atuñ ko dégluwal ki doon wax déglu ma waxatu déglu ma atuñ ko dégluwal wax kañ doon wax déglu woon wax duñ ko déglu woon ndax wax na ba jeexal mm. ah, ka doon wax déglu ma it wax déglu ma ndax wax na ba jeexal mm. te farata bi sax war a kada teddal mm. ascension coow yi sanson mooy ngelaw lu xiir mooy barab bi ni mu noonu yëngatoo ndax xiir ak werante bi wa kaffa te fegu almunation aji werante xam ne ki doon werante yëpp wasakana te noppi asama jiru gëdd yi yëmm yi baatu gaynde mooy sam jara loolu lay firi ci cosaan wasakata te noppi almasjooru ku ñu jàjji wasaajur ak aji jàjji daf leen déglu ñoom ñëpp bañ wax ba seen waxukaay pare ba loolu xamee nag aqbala jublu na moom këhlu bi alal jamaati ci mbooloo ba lu leen doganga wa qaala mu ne leen laqad jiitum wallahi dikkal ngeen shay la iddan lu daa ji kéemaane ah yéen di seen bi kéemaane na fi ngeen teer de kéemaane na wa jeng ngeen xanil mm-hmm. qasdi walis jublu bi mm-hmm. jiddan lool te daal affaire bi jaarul yoon dara dara dara waaw hmm. ma ngeen affaire bi trop waxasamtum màggal ngeen hmm. alxidaama yax yi hmm. arrufaata yére way punux fonk ngeen ko di ñu démb réyal ngeen leen baax na lool waaye loo ji sàpp la xam dangeen romb xàpp waaf tattum jigi ngeen dayoo mm-hmm. fil may li ci jëng mm-hmm. ila man jëm ci ku xam ne faata faat na mm-hmm. ñi nga xam ne raw nañ leen mënatu leen jëriñu ci ñoom ñun ngeen réyal réyal ba mu yàqal leen ñi ngeen jamono anteel xam ne ñoo leen mën a dimbale ba ngeen mën a àgg ci ñi leen jiitu woon ndax ñooña kenn du leen ci jàngalati ñooña du ngeen ci def munasara ak kenn hmm. ñooña du ngeen ci bind jox kenn mu def ko naqadu hmm. te ñi ngay féqal loolu nag hmm. wax dëgg ñooy nekk sa jaarukaay ci jëriñu ci ñooñ démb waxamastum xeem ngeen jilakum seen maas alladina maas gi nga xam ni fiihim nekk na ci ñoom daatu ay morom lakum ñaal leen seen maas gi nga xam ne ñi ngeen war a dimbalante ci liggéey ci lañ nekk hmm. ñu xem ngeen leen hmm. ba man leen a dimbalante ak ñoom hmm. te nit man da ñàkk soxla ci nit ña wana xadat te fasu almawaddaatu ay cofeel maa mu ànd ak ñoom seen mag bi nga xam ne ñoom ngeen mën a amee ay xarit ñu ngeen di yu ngeen di wéttalanteel xem ngeen leen ko defee maanaam nangul ku démb hmm. ba mu yàqal la ku tey hmm. loolu jukkoy israiliya la israiliyaat la melaw banu israila la hmm. ah ñoom ñoo nangul Muusa Iisaa dikk ñu bañ benn benn ba nangul Iisaa yonent bi dikk ñu bañ loolu mooy seen mbir loolu ñoom ñoom lay seen mbir te itam ku xam yàlla dana xam bu baax na rek yàlla na mu baaxee woon daaw hmm. ah noonu la baaxe woon noonu la baaxee ren rek hmm. ah mbaax ak daaw gi daal dara wàññeeku ci ci ren hmm. te lam xamoon daaw itam mu ngi ko xam ren rek waaw ah, su boobaa nag heure bu ne rek muy fi bàyyi ñu xam ne leer loo kaay lañ nangu loolu moo lay tax a jëriñu ci ñi jamono ante ah, anam nu ammaara la axfa ala ahadin illaa ala jahilin bi shamsi wal qamari yaa ngi koy bind anam nu hammaara laa axfa ala ahadin illaa ala jahilin bi shamsi wal qamari mu ne moom mooy ibnu hammaar siiw na koo xamul jant beeg weer wi rek koo xamul de waaye ñëpp xam nañ ko laa axfa ala ahadin illaa ala jahilin bi shamsi wal qamari in kaana axarani dahri fala ajabun li ma doon ku mujje ñëw nag du lu tumaranke in kaana axarani dahri fala ajabun bind nga ko fawaidul kutbi yustalhaqna bitturari fawaidul kutbi yustalhaqna bitturari mooy nit day bind téere ba àggal xam lu mu yëg ne bàyyi na ko te loola yitteel torop mu dabaatal ko loolu mujjëm ci téere bi taxul li ko jiitu ci téere bi xëpp ko ci xiima xam ah, ne loolu mujjëm ci téere bi mujj gi mujj ñëw si bokk ci taale bi taxul li ko jiitu ëpp ko xiima fawaidul kutubi fawaid tax mu ne kut bi na def leen héegal bi turari ci ay turar bi turari ma seet nañ ko bindee xam moom yustal xaq na def na leen yéegal yustal xaq na bi turari ci ay tur la te ngeen may comme tural su noonu bu naan la almaar yi moom naa ne nga yëngu di koy xam nga dof la woon moom bokku ci wa inni wa inni wa in kuntul axira zamanuhu la atin bima lam tastatinul awailu wa inni wa in kuntul axira zamanuhu la atin bima lam tastatinul awailu mu ne saa boobu ma dee ko tey waaye bu ne may def loo xam ne ñooñu démb mënuñ ko woon de wa inni wa in kuntul axira zamanuhu la atin bi ma lam tastatixul awailu bu baax a ndax fàtte ngeen yaa jahabidata naq di yéen kilifay gëstu yi naq mooy jël wax dafa critiqué te rafetlu la ngay rafetlu wane fa nga teg rafetlu ga da ñaawlu la ngay ñaawlu wane fa nga teg ñaaw lu ga mm-hmm. muy rafet lu gu tegee ci xam-xam ak ñaaw lu gu tegee ci xam-xam mm-hmm. moo tax ñuy wax naqaru wa xal li mm-hmm. te de way xarte fecci wala xaqadi ak fat alxallu mooy luñ wëy nga wisar ko alxaqadu mooy luñ wisar nga wëy ko lum ci mën a doon ku xam ñaari fànni kitaaba yi te man leen ci moom la amee ku xam wéy te man ko mooy mën a fekk wisar mu wéy ku xam wisar te man ko mooy mën a fekk wéy itam ñu wisar ko ndax da ngeen fàtte maa li nga xam ne abrasat hu génne na ko tawariful xara yi way ndawee xel yi mooy niti jamono yi wa barrasa te raw fii ci moom aljaza o mool mooy fas wu ndaw anal hmm. xaarixi ci fas wu mag bindkati jamono bii hmm. ñu ngay génne ay fànni mbind yoo xam ne hmm. doo ko fekk ci mbind ñooñ démb loolu nag lu ko tey rawee ku démb la aljaza o mool xaari ci fasu mag mi ngan ay ci ay wax almuhaddaba yi yuñ sellal hmm. ay wax yoo xam ne lu ma a jëriñ nit ki ci hmm. nitéem la hmm. ay na ay hikma yu ñor wal wal wal istiaaraati ak istiaara almustaadaba yi yuñ neexlu ak xeeti istiaara yu xam ne yu neex la war rasaili ak leetar al muwassaha yada yuñ gañaayal yada yuñ yada yuñ gañaayal mooy dañ leen wala farajini ak i sañoo al mustamlaha yëre neex jamono bi bindkat yi ñu ngi indi lii waxal lil qudama ñeexalul way jiitu yi ida anama bu jaaxalee mooy bu bari lee an nadara xool man hadara ki teew yow mi su fekkee danga jël mbind ñooñ démb nga suttantal ci bu baax doo leen gisal xayrul maaniin daray ay maana al matruqatil mawaridi yére yu ñu bëtt seeni rotuwaay ay maana yoo xam ne yu soree ak ñun li ñuy dund la pour ñu dégg ko lu jafe al maqulat yére yu ñu gëx mooy yére ñu xeew ak sawaar yére way yére way ñu nekk ay maana yoo xam ne hmm. xanaa dafa ànd ñoom lañ doon dundee rek hmm. nekk maana yoo xam yu soree hmm. ak nite daal li nga xam day jëli nit ci mujtama almasurati dañu solo anum ci ñoom li taqaadumil mawali di ngir njëkk a juddu ñu doon lu xam ne ñoom dañu njëkk ci àddina njëkk ñu yëngatu ci mbir mi bàyyi ko fi ñi war a ci seeni asar hmm. loolu moo tax rek ñi ko jàng hmm. laa li taqaddumi saadir hmm. waaye du jiitu aji gong yi alal waari di ci aji root saadir mooy ki dem ca rootu kaay ba ba xam ndoxam di dëpp waarit mooy kii rooti waaw du ñoom dañoo yore loo xam ne ñu tey yore wuñ ñu soxla jàng ñu jàng seen wax du loolu waaye ñooñu jekk na mm-hmm. kon ñu jàng loolu mm-hmm. fekk na njuumte la nag maanaam njuumte la dama dem bu ku démb yàqal la ku tey mm-hmm. loolu moom njuumte la nga xam ne yoo xam ne rek démb mënu si wuutu ni sa tey <laughs> moo tax xalaat bi ci la daal ngay naw nii ñun bu soxla seeni mbind dañu fay njëkk rek mënuñoo ñàkka jaar ci seeni jeexit waaye duut dañoo raw ci lenn nag wa inni man la arifu dana xam al aana léegi jamono bi may wax ak yow maa ngi xam man ku xam ne idaan bu sosee bu defee insaa wasaab mu gémmiñal mu rafetal waxam jamono bi xam bu xam ne su defee insa wax bu rafet lay wax way saa xabbara bu piree mooy bu defee taabiir xabbara mu rafetal mooy mu gémmiñal wayin asaba bu juree mooy bu guddalee waxam ashaba mu demee xel yi wa isa awjasa bu gàttalee ajasa mu lottuloo su defee ijaas génne moo jisa wayim badaa bu juree mooy mu buur wax ci lu dul xalaat sadaa mu gëlëm loo nit ñi wa ma tax taraa waxtu mu fentee mooy mu génne loo xam ne xamuñ ko woon ca ñu njëkk ña xaraa mu tiital jamono bi gis naa ko xam naa ko xam ne mboolem fu noonul kitaabati hmm. kéemaan la ci kon nag gaañu jeex nañ mm-hmm. yow nangul ne gisagoo waa ji rek mm-hmm. waaye gaañi jeex na mu xëpp na di wax jamono bii gis naa koo xam ne ci gaañu tëgg la mm-hmm. parce que fu noonul kitaabati xamul benn buñ ko ci dul naw isaan so a bu sosee wasa mu njamal mooy mu taaral wa isa xabara bu firee mooy bu génnee ay xibaraat mu def taabir xabara mu ngémmiñal mooy mu rafetal wayin asaba bu bu guddalee hmm. bu bëri lee wax hmm. asaba mu demee xeli hmm. wa isa aw jasa bu gàttalee bu génnee wax bu gàtt ah jasa mu lottuloo wayin badaha bu juree mooy bu buuree wax ci lu dul xelaat sadaha mu gëlëm loo wa mataxtara waxtu mu fentee xaraa mu tiital lii la wax ne gis na ko fa qaala dal di wax la woo ñaal ko nadratu diiwaan kilifa ak mbooloo ma moom këlu bi mu waxee lii kilifa ak mbooloo ko wax wa aynu ulaika al ayaan te mooy sangab yooye lay sang ña fa nekk ñëpp ñu am solo lañ waaye kañ def muy seen kilifa gañ jox baat nag moo wax ne ko man ana kan qaari'u hadihi safa moo di aji fëgg doj wi safaatu mooy doj hmm. wa qarihu haadihi sifa hmm. Hmm. te da aji doxee sang ci melo lii kum de mayam haa kii de kilifa dëgg man ana kan qarihu haadihi safa mooy ki fëgg doj wi wile doj wa qarihu haadihi sifaati te da aji doxee sang ci melo fa qaal kahlu bi ne ko innahu naka kooku naka moom xirnu majalika mooy aji mooy aji lewtoo ci sa wëndeeluwaay bi mooy ki jël kàddu ci seen jataay bi wa xarinu ji daalik tey hàndandooru sa daggante ki ngay tojoot kàddu nii la indahum xirnu majalika mooy aji lewtoo ci sa wëndeeluwaay bi hmm. mooy mas gi bëgg a xare ci sa wëndeeluwaay bi hmm. wa qarinu jadaalik tey ànd ndooru sa daggi ànd hmm. way daa siita boo soobee nag saa ka kooku farut na nga tàggat na jiiban aji tedd wanoo te nga xoo mu jiiban aji hëyu li ngir na nga jël ajiban aji héeme hmm. léegi nag man man mii wax ak yow la hmm. dew ma fenn soo hmm. ci bëgg a xam lu leer mën nañoo wéyale wax wa siita boo soobee saaka kooku xam naa saa nag moom buy fin li sarta dañuy faral di xasaf moofu moonam farut na nga tàggat na jiban aji tedd wadon tenga ho mujiban aji hayu gitara ginna nga jin ajiban aji heewi hmm. fa qaala kahlu bi daldi wax la ma ñaal ko bi mu waxee lii kahlu bi ne ko hmm. yaa haada yow mii hmm. innal buxaasa naka picc ndiiti laa tastansiru du tantanlu bi ax ci suñ suuf picc ndiiti picc su tuutee tuuti la picc moo tuuti moo la dikk fi de doo tànn hmm. man daa mooy ku du dara hmm. lu cëpp-cëpp ci suñ ko hmm. tamyiza naka jàqe wa inna tamyiza dañoo asab inna bi te lëggéeyam ne fi wa tamyiza naka jàqe hendanaa fi ñun beneen firdati ci diggante xaalis wal xaddati ak xandeer mooy tojiti ndaa yooyu mu tayassir aji yomb la te itam ñun du ñuy naxoo ci mazahir yi hmm. ah gis col nga nit rek hmm. dégg nit koo wax ju neex rekk hmm. nga fàq ne waajaa ngi déedéet dañoo xool mbir yi bi maaniha waaw ah, ndax wax dëgg yàlla xaalis ak xaddar buñ ñu dooyee min haysul mazhar itam wute nañ lool min haysul maana waaw ah, ndax ma fil absaari zahiruhu mooy ni doo ci zahir rek bul nga tax de wax naan ñoo bokk adama tanasaba fil absaari zahiruhu lañ koy bind adama tanasaba fil absaari zahiruhu wala taqul bi qiyaasin gayri mutaridi soo ko waxee da nga ci natt wala taqul bi qiyaasin xayri mutaridi fa hayatul mutanafi laatidaada biha fa hayatul mutanafi laatidaada biha daqaante ci maanaa taxul niroo ci kaw fa nga jotewul ak niroo ci kaw dara fa hayatul mutanafi laatidaada biha sattaana ma bayna muhtasin wa murtaidi mooy feral ki bég di jaayu ak ki feebar di lox wala ki jàq di lox cër yi ci kii mooy yëngatu ci kële waaye est-ce que benn lañ xam nga duñ benn sattaana maa bayna muhtasin wa murtaidi muhtasin ha ak say ak sabir ak say muhtasin ihtasa wa murtaidi waaw mu ne ko ay nit nga fi fekk ah ñu ñor nga fi fekk ñoo xam ne kenn du leen napp ci caaxaan ay wax yu rëy yi yooyu yëpp boo ko waxee te lu rëy nekkul ci yow itam doo fi jël kenn wa tamyiz tan naka jàqe hen danaa fi ñun beneen firdati ci diggante xaalis wal xaddati ak xandeer mu tayasir lu yomb la wa xallama néew na koo xam ne ista dafa sampu na li ni daali ci fettante fa xalasa mu mucc mina dayi ci jàngoro alma daal ju daaj jafeñ ci faj fee ñëwee fu jaay yenn yi lu dul ne rek lu ko métti moo ko fee toppee awit tasaara walla mu jéqi naqaal imtihaani pëndam nattu falam yuqda te laasaleesu ko bil imtihaani ci doxaa dal fii ku fi ñëwee eh, jongante dañ lay daal awi tasaar walla mu jeqi naqaal imtihaani pëndam nattu falam yuqdar te laasa leesu ko bil imtihaani ci doxala fala tuarit bul gaaral haddaka sa der lil mafaadihi ci gàcce yi si gor du dugal boppam ci gàcce xam ne yow mu gàtt moo gën mu gudd wala tuarit bal du moyu an nafahati naasi yi walislahi bi rek aji lahi biir man digal naa la nit du xam luy xotti suturaam mu ci dugg waaw mu ci dugg du xam luy xotti suturaam mu ci dugg lii la nadaratu diwaani bi wax fa qaala kaalu bi nee ko kullu mri'in jépp waay aarafu moo gën a xam bi was ni xidhi ci màndargaam bant maysara maysar xeetu carte la bant yi ñu koy doxee nag mooy xidhu kenn ku nekk xam na la moo xàmmee bantam waaw nit daal moo xam manoo rek waaw kullum rin jëpp waay arafu moo gën a xam bi was ni xidhi yi màndargaam bant maysaram wasa yettafarra xel si nay bu ñeeku àllaylu guddi hansu bi ci subaam te it man dew ma fenn te mbir mi ci kanam la ne waaw hmm. ah, man dew ma fenn mbir mi ci kanam la ne hmm. xam nga door a gis ni din nag yëg sa bopp bay ko bay ko jombale yenn yi hmm. loolu loolu loolu du ñor ah, yëg ne yàlla may na la danga xam li yàlla am ëpp na la nag <laughs> yàlla am ëpp na la nag waaw waaye nit bu yégee mayam rek ba mu gàllankoor ko ci nangul keneen rek mm-hmm. dafay mujj may ga dafay tëj kasoom lay doo mm-hmm. du mën a jëriñoo mm-hmm. te fenn waaw tëdd ko dal di diyaale aljamaatu mbooloo mi fii maa ci lu xam ne yusbaru def na nattoo bii ci moom xaliibuhoo teenam wa yombatu te def na jublu fii ci moom taqliibuhoo jàllar bi gaa ñu ñëw nañ déeyoo hmm. wax gannaaw nee na dawut hmm. nañ seet fuñ ko jaar ci hmm. wàllu nattu ko fa qaala dal di wax ahaduhum kenn ci ñoom am ci ñoom ku ne e sërowu bàyyi leen ko fii hissati ci sama cër kii kay moom yéen génn leen ci te bayee maa moom rek li armiyahoo ngir naa ko sànni bi hajare xissati ci doju sama njàngat parce que maa ngi am jaar-jaar bu xam ne su fekkee àggee naa ko ko mbiram dana ci leere li armiyewo ngir naa ko sànni bi hajare xisati yi ci doju sama njàngat fa innaha naka xisati yi xoodalatul xoqat yi mooy gàllankooru pas-pas yi pas bu kenn man dafay ci la wa mi hakkul muntaqadi te mooy gëstuwaay kaxe mi hakk mooy doj woowu jaaykatu xaalis doj boobu ñii seetee xaalis bi rax na wala raxut wala mm. wurus wu rax na wala raxut mm. moo tudd mihal naqadu mooy kaye mooy gëstuwaayu kaye mm. ki kay su ngeen ma ko baxee ba ma nettalil ko sama jaar-jaar bi ci tontum ci ngeen a xamee waaja la wala day doxee lu nekkul ci moom fa qalla doohu gaañe ràngal ak saamata njiit fi haadal amri ci mbiri mbir gaa kon yëf yàngu waaw da ràngal ko ak saamata njiit fi haadal amri ci mbiri mbir taqalidal xawaarij yi kem ràngal ak xawaarij yi abu naama su fekkee jullit ñi dañoo gis ne kii moo war a nekk amirul muminin ñu jaayanteeg moom ñu ne kii mooy al imaamul xaq mm-hmm. ñépp ko war a seen baat di ko déglu mm-hmm. soo amee aw nit ñoo bañ nag mm-hmm. ndax yëg seen bopp ak fi tërlu ñu ne ñoo fi abaaxiya ñooy xawaari ji ñooy xawaari ji ak ku ñu a jiital amirul mumin dafa war a xeex ak ñoom bañ def waaw masal ibnu subayrin nag dafa am ñu fàqoon mm-hmm. jiitaloon ku ñuy wax abuna amata waran mm-hmm. na xawaari ji jiitale woon abuna amata mm-hmm. abuna amata xutu yum ni fajaa fajaa lañ koy ku musoon a mus la ku ñëwoon la ku mënoon a wéy la waaw ah, wéyam nag affaire u xare ah, fa sabran fi majalil mawti sabran fa maa neerul xulóode bi mustataaye loolu ci la kooku lañ jiital ñu ne ko yëf yaa ngoo fa aqbala mu jublu alal këhli ca mbañul boobu la jëmali gàngat yi waqaala mu ne ko ah ilam xamal ne an nii man wali danaa xaritoo xaadal wali jële wali mu ne ko man de ma kilifa ak barab jaar nañ fu ne féq nañ lu ne wala xihu danaa te deferee bayaani ci biral alxaali bu daa ji neex te itam naa ci lu ndax mbind lay doxalee sama mbir bu kuntu nekkoon naa astayeenu de dimbandikoo ala taqwimi awadi ci jubbanti sama dëng-dëng mm. fii bala dii ci sama dëkk mm. bi saati daati yeddi yi mm. ci koom ak sama loxo dama amoon dara lu xam ne doy na ma ndax booba suma jëmm ji dong la lu ma doy yomb na ma nekk sama dëkk da ci ma da doxal sama mbir am na ci kenn soxla dara waaw kuntu nekkoon na astaayanu de dimbandiku mm-hmm. ala taqwimi awadi mm-hmm. ci jubbanti sama dëng-dëng mm-hmm. fii baladi ci sama dëkk bi saati daadi saati yadi ci koom sama loxo maa xillati adadi ànd ak néew ak sama lim ma boo sama jëmm bopp rekk la ah jabar bokkagut doom bokkagut meneen mbokk bokkagut ah lu ma am rek dama koy lekk taxoon ma foog ne la ma am kay lu ma dooy la ma jàpp ci na jàpp ne man ku mën a dem rek la du ma mos a faale kenn waaw léeg-léeg xale yi dañ cee toll xam nga xam ne paltu rek la xam ne oto yi dem fu ne daa foo ne ndax rek ku amul place yow la neex day tëb rek mu la nga dem waaye kër bu gaal di kii nag kër bu ci gaal bëgg a bokk nag nga xam ne dootul nu ko neex lay duggee oto nag lay demee itam nag te loolu gannaaw jëmmi boppam rek la waaye mm-hmm. lu nekk rek nit mën na caa dund jàll mm-hmm. waaye keru masoliya dikkee nag mm-hmm. fokk dana ne am na yu nag waaw la ko rek mu ne fala ma soqula ba diisee haasi sama joggare ah, ba hen dikkee nag la ma jàppoon ne mën na maa jàllale loola mënatun maa jàllale wana fi dal di jeex rasaas yi sama skala rasaas mooy taw bi misal taw bu tuuti waalal bi tuuti la ci jublu la mu yore woon foog ne dara la te atanul ma dal di jeex mhm. ah ma toll ci soxla ndimbal mhm. comme ñi demee ni man rek mhm. ku toll foofu bi loolu amee na amam too jublu naa ko min arjaaye tukkee ci samay wàll dama bàyyi ko fu mu dëkk ñëw ci moom bi rajaay ànd ak sama yaakaar ndég yaakaar ne dana dimbale wa daamtoo ma woo ko li ihaadati ruwaa yi ngir delloo sama taar wa irwaa yi ak sama màndal ma bëgg daal mu dimbale ma mm-hmm. te daa nga jëma miinoon mm-hmm. mu man ca wi waaw soo mu mm-hmm. li li fa gane gi ma ko gane mooy kontaan naa ci yoon wi torop ah ndax wax dëgg yàlla nit ñi bëri nañ waaye yàlla mi da saqel mi ci man nag loolu lu rëy la ci man ah fawadda min arrahmani ma jaa lil hospitali waraaxate mu bég waaw faasa mu bég li luy faadati ngir gane gi ma ko gane waraaxate mu bég waxadaa mu xëy bil ifaadati ci jëriñe waraaxate mu gont ci mu deme jëriñ xuddu wan warawaaxa falamasta adantuhoo ba ma ko diisoo nag léegi ci ngana léegi la nekk bu ne rek lu mu yaakaar danaa ko soxla ci gi mu andi ba ma ko diisoo nag fil maraahi ci dem mm. mooy ba ma tàggoo nag mm. ilal muraahi jëm ca jofuwaay ba mm. mooy fi nga dëkk raahatu mooy lisimam mara rawaax mooy lisimam masdar mimi la ala kahilil miraax ci joggarey siigarewu mooy kontaan mara bi ngan gi neexee nag ba xel da ñibi nag ma ko léegi man ku ma xeewi ma ñibbi laa bëgg xaal mu ne ma xat hmm. asmaatu dogu xoon naa hmm. an laa usoo bi dakka ba déet ma di la yóbbal ba taatoon benn yóbbal hmm. wala asmaate du ma dajale lakk ñaar la sottaatoon aji tàggaloo li ma dogu xoon de mooy fii ngeen fi nekk ma di la ganale waaye baa ngaa jógee nag du la jox dara dara li nga tawati du ma ci jéem dara dara dara hmm. fekk defu la li may waajo wax si nii hmm. loolu daal li ma dogoon hmm. te ci laa nekk ba léegi aw tun si a muy nga sos lii ñaal ma amaamarti xaalika ci kanam sag laxas risalatan leetar boo xam ne too dem haa da nga koy dégg sara xaalika leeral sa mbir il faut rek da nga may jox boo xam ne danga ma ci wax danga ciy wax fi nga toll danga bind benn wax ci fi nga toll hmm. xuruf ihda kalimatayha hmm. xarafi kenn ci ñaari baatam hmm. yow muha dana leen matale an naqatu tomb xuruful uxra xarafi beneen baat ba lam yoo na tombe su leen xottu ci léwi mu nekk leetar boo xam ne ñaari baat yoo dendale benn bi day fees demee tomb benn bi am tomb ci daal mu ne lii la ko kilifa gi wax mu ne waqad istanaytu mu ñëndiku naa bayaani sama biral xawlan xat fa ma ahaara delloo xawlan wax loolu de mooma bi tagal daaw ba ren man ah ndax mënumaa dem te yóbbuwuma dara te bu du ma fi jëlee dara te li moom tëxagum daa ba set maa ngi wa xarit tax na itam bu ñu dégg naa bayaan yi sama biral xawlan xat ma aara delloo woon xawlan wax wa nabbatu xeenaa fikri sama xelaat sanatan xab xamas daada dolleekuut illa sinatan dara gëmmintu daa ba ren maa ngi de jéem waaye dafa mel daf may gën a të daa mel ni baat yaa mënoon a am sax mënatuma ko am wastaantu dimbandikoo naa bi xatibatil kuttaab ci mbooloom bindkat yi mm. ñi fi nekk di yëngatu ci adab mm. ñu ci bëri gaaral naa leen mbir mi mm. lañ leen ci ndimbal ñu dugal ci seen loxo waaye fukk lun képp minum ci ñoom xatta ba ñëkkal na xar kanamam wattaaba mu dellu gannaaw waaye ku ma ko joxal la may tontu suma xel daj waxati bu ko waaw daal façon bi wax da ngaa xam ne loolu mënu mënu kenn comme ko ci wax du mënu fa in kunta boo nekkee sadante di wóoral xan was bi kay ci sa melo bil yaqiini ci wóolu su fekkee li nga wax ci sa bopp nii nag wóolu nga ne mu ci yow faate na nga dikkee bi ayatin màndarga andi màndarga mu ko dëggal te mooy def lii te bunda boo nekkee mu ne saadiqin dafay dëggal da hmm. bokk ci way dëggal gannaaw hmm. hmm. lii de ka waxoon ne daroohu fi xissati li armiyahu bi hajari xissati moom de nii la waxee fa qaala këhlu bi dalte wax la woo ñaar ko këhlu bi tontu ku nekk laqad istaxayta wallahi dawloo yaa booban fas wuy daw ak koon waaw fas wu ma kay boo bëggee ci moom daw hmm. gën a yow man lii dama koy def duñu ma ko sant hmm. ku ko bëggee wax dëgg yàlla waaw <laughs> dama koy def ci lu jàpp ne bu kenn bu bëggee a yomb la waaw hmm. ah. waa xayta te nga nandulu uskuban niir wuy sotti waaw ah, niir wu dee sotti kay soo bëggee ci ah, <laughs> mu koy def wax dana fa koy def ci loolu ma yëg ne kenn soxla na loolu kay boo ko bëggee dana yomb waa tey te jox nga hmm. alxawsa xala gi baariha aji yettam hmm. da nga joxagu doon mbir mi biram borom rek xas hmm. na ci borom jox mbir ku borom nag loolu tooñ mbir la waa kanta dëkkal nga addaara kër gi baniha aji tabaxam naa moo gën a xam fu nekk dañ ko pareel mbir mu daal jox borom su ma sa jam su ma fakkara topp mu xalam mm. rey sa ma sa jam ma diirab lum dajalee mm. xariixatahoo xelam mm. wasta darra tem ratt liqaatahoo gëlemu rattam mu toog kem lum mën a settantalee ba delloo si xelam mën a génne li xel li ci xel mi kem loolu la toog waqaala mu ne ko alix deferal dawaataka sa daa ba xarub te nga jege si gannaaw nga bëgg a dégg mën nga defar sa jumtukaay yi mbind te nga jege ndax xam-xam dañ koy bind ma kutiba xarra ma xutida xarra elon bu am waxus te nga sa jumtukaay yi waxtu te nga nga jël sa jumtukaay nga bind lettre baa alkaramu sabatallahu jaysa soodika yasin ba mu xàgg alkaramu tab yasin day rafetal sabata yal na saxal allahu yàlla jaysa soodika xareb sa texe yal na yàlla dëgëral sa saada ay tab may rafetal si góor alkaramu amul daraja tom mais sabata xaraf yëpp dañu am tom allahu amul daraja tom mais jaysa lépp dafa am tom su ma di ka amul dara ci tomb yées yi lépp dafa am tomb mm-hmm. noonu la la leetar bi mel rek mm-hmm. ba muy xàgg walu mu bon mm-hmm. yu siinu day ñaawal xat da yal na gëmmal ak daru jamono jam na xasuudi kam batam bëtam ku lay xañaani nay jaawa day ñaawal si góor ku lay xañaani yàlla bu ñu kontaan wal arwan wa sang yu siibu day fayee ak sang boo ko defalee tiranga daf la koy fay wal moo wir ku bon jikko yu xiibu day sooyal nangu yaakaar desooy ci yow xer la ci ñaaw jikko wal xulaaxilu sang yu xiib dana ganale wal maaxilu rambaaj mooy ku lay wuutoo ci barab yàqal la mooy safaanu saafiya kooku yu xiifu dana ragal loo waaw ku mel ni yow hmm. ku mel ni yow hmm. xam fi ku lay defaral hmm. moo gën waaye borom soxla bu fi am ku ko yàqal rek mbiram mën nay tag waaw maahil mooy safaanu saafia waaw mooy koo xam ne dala wuutu ci barab ndég dala yàqal mooy maahil dal ñaan allahumma ij'alil qur'ana saafian musabbahan fiina wala tajalu maahilan musaddaqan xam nga am na ci ñaan yi waaw alquran daal bu mu doon ku ñuy boole yow mukk waaw wa samhu tabe ku tabe yuux di dana dundule day joxe ñam wal mahiku ku bon jikko yuq di dana mu waaw soo ko engagé it bët yu gën a xonq rek nga day jële wala taw may yun ji dafay musle nit joxe da koy musal day rafetal deram rafetal yu bari wal mitaalu wal mitaalu yàggal ba mooy négliger ko war a taxawu mooy mitaal matlu loolu us ji day jàqaloo kuñ ko def rek sa mbir daf lay jaaxal waddumaa u ñaan yëqii danay fekk ñaan danay fekk yu bari ay hikma yu yum tegale nii rek xëy na daal dafa bëgg ba mu koy waxee soxla mu taxaw ci wal madu tagg yum xii dana mu setal wal hurru gor yu ji siwu dana mu ya ji si dana mu faye ya ji si laa ko tey waaw wal iltaatu nëbbu dëgg waaw wal iltaatu nëbbu dëgg aj saa yu siwu bokkul ak jasa ya ji si waaw wal iltaatu nëbbu daw ko ndegam looy ragal mu fekk la ca wala ndegam looy dabu ca la du dëgg loolu yox si day toroxal nit léegi daal fi nga nekk am lu mu laaj watiraahu dil hurmati sànni borom xorma dafa yoon réer la la waaw ku ñu war kooku gorojal ko bokkul ci nite wa mahramatu banil amal xañ borom mi bët yi hmm. mooy borom yaakaar yi hmm. yun tooñ la ku la yaakaar nga tas yaakaaram hmm. loolu xeet la ci tooñ wa ma danna te nayut illaa xabiinun rekku naxu xalal ka ca mën da tiyaabu mënu jaa rafetal deram hmm. kooka mooy ka cay perte hmm. waaw ka ca mën daa am tiyaabo hmm. waaw mënu jaa rafetal deram kooka rek mooy ka cay perte wala xubina naxeesut ila daninu ndare ku nay alal foo ko fekkee mu kasaara fañ ca deful ba def loo am njëriñ jotee fañ ko ca defutoon wala xasana dencut illa saqiyun ndare ku texe hadi am na noo amee ko halal xet la ci ñàkk sens ndax coono wut ak coono fat ak coono xisaab ëllëg te njëriñ du am xel yi saqawa dana de ak coono xisaab ëllëg ak ak coono fat fii wala xabata mosul bank raawoo tenqam taqiyun aji ragal yàlla nit ku ragal yàlla doo ko fekk mukk diggante moom yàlla muy ko kajamale yàlla li àddina waa fati a mosul dañ nag waa du ko sa dëhal yëfi gamata yow na li ñu mos xam ci loo diggee danga ko waa rawu ka mosul dañ say pexe taswile safara hmm. te tamit ku am basira nga hmm. mbir mu gaar boo ci génnee sa gis-gis rek hmm. gàggante ku dana am wii laa lu ka mosul dañ sa tarote yóbbu yi da leeral te itam kërim nga naka jekk cël may lu fireeku mam ngay wa xilmu ka mosul dañ sa lewet mhm. yoo déedéet du moyu mhm. te itam ku nite nga mhm. ku xam andin bu rafet sa digganteeg nit ñi nga moo tax rëcc rëcc yu bari dafa gaaree nit itam doo ko toppee wa ala u ka mosul dañ say xéewal tox nii de xoomal loo te itam jox nit lu ko amal njëriñ lu mu bëgg lu mu dëgg mën a nga ko def waa daaw ko mosul dañ say noon tus nii dara tagg du la nit bañ bañ seedeel la baax wal fadlu ma shahidat bihil ahdaw waaw mbaax moom bu ko noon seedee rek xamal ne dëgg la waaw wal fadlu ma shahidat bihil ahdaw waaw mbaax moom bu ko noon seedee rek xamal ne dëgg la waxu sax mu ko mosul dañ sa jaasi yub nii da jeexal ah say noon bu ne yàgg na leen jeexal ci sa jaasi wusuuda du ko mosul dañ sa cang yuq de xoomal loo ne nga nekk sang moo tax ñi la xaritoo ñëpp dañoo xoomalee ci yow waaw man na foo fii ay yuhaaja wa darruhoo fii silmihi law tabtunul aadaw mu ne noona mi dañ ko xamul rek waaye kii ku ko bëgg sonnal ku ko bëgg a lor da def muy xarit waaye boo ko defee muy noon rek hmm. jeex na njëriñam nga hmm. waaw ndax dana la duma jël li nga hmm. su fekkee xaritam la lu ma am la ko jox waaw mu ne man na fon man na fon woo ay yuhaaja njëriñam mu ngi ci nga ko xeex waaw wa darruhu waaw wa darruhu waaw man na fon woo fii ay yuhaaja wa darruhu fii silmihi law taftunul aadaw law taftunul aadaw law taftun bu xelu woon al aadaw ay noonu welante woon ñu xam ko mu ne alalam comme janaaw la bu juboo dikkee damm mbagg rek xarit dikk jàng fa silmu yakk siru min janaaxay maalihi fa silmu yakk siru min janaaxay maalihi waaw fan fa silmu yakk siru min janaaxay maalihi àllam comme janaaw la bu juboo di ko damm mbagg yi waaw fa silmu yakkasiru min janaaxay maalihi bi nawaalihi ndeg ni muy joxe maa taj burul hay jaaw bu xare dikkee jàng ko maa taj burul hay jaaw léegi daal li muy dammee ci xarit yi ci noonu la koy jàngee <laughs> li muy li muy jox xarit daal ci noonu la koy nangoo fa silmu yakkasiru min janaaxay maalihi bi nawaalihi ma tajburul ahdaau ma ma tajburul hayjaaw di nga ko bu baax a baax mu tënna bii moo ko wax muy tagg Haaroon waayam jooju am si am boobu alfate ah, naa ko waay ah, waaw ne asafi ala asfate naa ko waay asafi ala asafi lay dalatin ima ak waa demee ca xasida da nga ko ci gis ci diwaanul mutanna bi wala ko gisee woon mu ne doo lii bu mu wasilu ka masul dañ aji jokkoog yow yejta nii de kotti hmm. ku mos a jokkoog yow dana fi jëlee njëriñ hmm. wa maadihu ka masul dañ aji taggala yaxta nii de xoomal hmm. wa samaahu ka masul dañ sa sab yu xiisu de xettali alxawsu wa samaahu ka masul dañ saa samaan te xiisu de taw xiisu wa darru ka masul dañ sa soomu bëri mooy samay gu bëri yu xiisu de bëbb di tasaaroo ci nit wala du ka da dañ sax delloo mm-hmm. bay nit joxoo ko dara mm-hmm. yaxiiru da nga ci diggante nit mm-hmm. nii mooy sanal wa mu am ko ki la jublu nag sa ganak tey gii nag seyxun ak a góor am mag la mu xam ne xakkaawu nitu na ko fay un keroog ngoon xam nga daanaka loo jeex la wala mu yëpp xate desut la woo ñaal ko seyxun dara am mag la xam ne mag moom jëfu du muñal te itam amul dara amma ka jublu na la bi zannin ci njortu lu xam ne hirsuhoo xiiram yasibu dana mu buur du benn kàttan waaye foofu lu rafet ci yow moo jox cawar tànne gum jógee ba dikk ci wa madaxaka taggee na la bi nu xabin ci tànnee fi baat hmm. yoo xam ne mu hóoru xaa seeni can hmm. te dana mu la wax hmm. tagg na la il faut nga wane lu dëggal tagg yi la ja war yow la ah, waaw yi wa dana mu xoyof ndax ku loru la rek lu ko teggi lor la soxla dut ku beew kuy teg nit ñi diis wa awaasiroo ay jottale ko waayam wa awaasiroo ay jottale ko waayam tasifu danañu dolleeku nag dund it nag bi mu dikkee la rek noonu la mën a dikkee nit mën na dikkee nit neneen la bi nuxabin ci ay tànnee fi baat yoo xam ne mu hóoru haa seeni jant te jibu dana mu la war kon mm. maraamu woo càkkutee ba mu yaxi fuu dana hoyal mm. wasiru waaye jottale ko waaye mooy wasaayilam mm. te sifu danañ yokk wa itraw ko xaaba bala mooy guddal taggam ijtada bu des na ko ñoom wa malaamu woo te yaddangeem ijtana bu def na ko teeg ku ko xam doo doo mu yeddal wala ahu te nekk na ci gannaawam dafa fun bëri njaboot hmm. masahum ñooñ laal na leen hmm. ku bëri njaboot la hmm. ñu xam ne laal na leen sota fun tatak dund waxasahum te suqi leen jana fun jëng ak jamono wa te matale leen xasa fun ñëgas ak dund dégg masahum laal na leen sadafun tat ak dund wala hmm. xat ak dund hmm. tat ak dund xat hmm. tal ak dund maanaam xat ak dund tal ak dund waxasahum te suqi leen janafun jeng ak jamono wa amahum te matale leen xasafun ñegas ak dund waaw moom um fi damen mu ngi ci rongañ yu jiibu yooyu dana sotteeku wa walahin ak dama xel yusibu góob dana mu ruyal waham hmm. min ak njàqare hmm. tadayafa góob wàcce na hmm. wahamadin ma ak ganese na wakkamadin ak njàqare nayafa góob yokku na léegi dañuy jàng loolu du suba insha allah ñi mot lillahi fa baax na baaxle li ma moo ngir lu ñu yaakaar xayya ba loolu sooyal na ndeg ay yaakaar yu yàkkeeku wa ihmaalin ak neenal sayya ba gug bi jawloona ak itam xam xam yum soxla ku ko ci jàppale teñ ba ko ca waa du win ak noon na yaba bu bañal na ak noon yu ko jekku waxu du win ak dal taxa yaba bug fàddu na walam yu si jengul widduhoo cofeelam fa yoo daba saw sus merees ko duut dafa jàmb ci xaritoo ñu nañ ko mere teg ko daan wala xabu sa bonul xooduhoo bantam fa yoo ko daba saw sus da gees ko duut dafa melul na war a mel ñëpp ne kii xëpp nay xànd tax ñu nañ ko dagg wala nafasa fuurul sadruhu dënnam hmm. fa fada hmm. saw sos fa gis ko hmm. du dafa wax lu waxuwut ñu ne nañ ko yar wala nasasa mayul wasluhu jokkam fa yób saw sos bañeet ko du dafa respecté wut xàndoo ñu ne kii daal kenn mënu ko sopp daal léegi daal mu ngi toll ci ay métti métti yoo xam ne dara taxul ñi mën a wax ne xeyoo na ko lu mooy rek jaar jaari àddina la daal wa ma yaqtadi du sàkku nag karamuka sa tedd nga nabda huramihi sànni hormaam ku ni war da sànni hormay ku ni kan gi fa bayit na nga leeral amalahoo mébatam yaakaaram bi taxfif alamihi ci oyofal métitam kon lii muy joytu bëgg nañ nga dëggal ci yaakaaram xoyo falal kooko soo ko defee yenu su dana tasaare xam daka sa cant bay na ci diggante aalamam su loo caa jëlee yow mooy der bu rafet ci ay bokkam baqiita yal na nga def li imaatati sajabin ngir dañal njàqare wa i'taa'i nasabin ak joxe halal wa mu daawaati sojanin ak garbal njàqare yàlla nanga fi des boo fi desee jaaxle yi de teggeeku ñi xamut de xam ba xiita yàlla na nga des li imaatati sojabin ngir dañal njàqare wa ñataa i nasobin ak joxe xalal wa mu daawaati sojanin ak garbal njàqare wa muraati yëfanin ak sàmmanteeg màggat boo fi desee mag ñi duñ tumaraan mawsulan nga de ku ñu jokk bi xab din ci naat ak dund ngay dund dund bu naata naat wa suróorin ak mbégte xad din mu daaji naat ba tey nga xam mbég mu naat li yal nay xam maa xusuye fekk dikkaleef na maa duxan yin barabu ko xoomal fekk barabu ko xoomal ñu fa di soxla mooy fekk faw rek aw xusuya walla fekk ragaleef na waxamu xabiyin mm-hmm. def léew aji dox mm-hmm. fekk borom xel mm-hmm. mu ngi ragal jaxaseeg nit ku ñorati mu ne wasalaam leetar bi xàgg na ci jàmm leetar baa ngi ni ni ko bindee ñaari baat ñoo leera leeraal benn bi day fees tomb benn bi du tomb li dañ ko doon nattoo falamma min imla i risalati ci fide leetaram ba nga xamee wax na leetal ba mu àgg hmm. wajalla te mu feeñal xam basalati ci njàmbaaram hmm. fi ay jaayil balaaxati ca xaree balaaxa hmm. xam ne li teg la ne borom man waree dëgg la addatu gërëm loo na ko aljamaatu mbooloo mbooloo mi yëpp dañ ko kontaan loo fi lan ci jëf ci defal ko tiranga wa xawlan ak ci wax ak tagg ko wan ko nangu waaw saadu te ñu yaatal ko xafa hmm. watan ci teral hmm. wa ak ci may ñu hmm. ngi ko teral di ko jox su ma su ila laajees ko min ay son bi ci yan giid la bokk son bu buñ fataaxee siin bi nijaaruhu haskanam ñu ne ko ci ñoo bokk min ayu soo bi ci yan giid la bokk nijaaruhu haskanam wa fi ayu sihaa bi ci yan yoon la tukkee fi'lu bu buñ kasraa siin bi mooy yoon wu ci kaw doj yoonu xàll lay doo wijaaru hoo ndaareem wijaar mooy kërëg bukki da koo jëfandikoo ci kërëg nit ñu laaj ko itam ana ban dëkk la mooy ñum bokk fu mu bokk ko xaala mu ni mu wax de tontu loolu mu ne xasaanu usrati ya wa sarooju turbati ya alqadima ba mu mu ne xasaanu xasaan usratiye ñooy sama njaboot hmm. asamima gudaa ji sell hmm. xasaan la dëkk hmm. muy dëkk bu sell bu ràññeeku amaana ci xasaan la bokk ñu ay te bokk dëgg laa ja wa sarooju sarooj surbatiye mooy sama suuf alqadima sudaa ji yàgg sarooj mooy dëkk bu ma fekk baax fal baytu néeg bi mislu samsi kem jant la mm-hmm. israxan ci leer mm-hmm. wa manzilatan ak daraja mm-hmm. jasimatan bu daa ji màgg juddu bi juddu bu solo la ñi ma bokk ay noobal lañ ay sang lañ ñu ñëpp xam moo tax juddu bi jant la ci leer ci kawe warabo wàccuwaay bi nag dëkk bi nag fi ma dëkk muy sëroj kal firdawsi kem hajjanay firdawsi la hmm. madyabatan ci teey hmm. wa mansaatan ak ci sell hmm. wa qimatan ak ci daraja comme ajjanay firdawsi la ci neex ci sell ci daraja ardun aridatu arja'in mubarakatun lillahi fiha barahinun wa ayatu ku baax waaxan dana ma héemu li ay seen ñi halab dundu kaana boobu nekkoon na lii dama ñaal fiyaa ci sarooj wala datin ak i bànneex xamimatin yu dafay matale dund ba ma fa doon nam neexee woon ak bànneex yi ma fa daan xam nam matalee woon ba tey jii dafa may yéem mbiru àddina daal ku mënoon defal nit loola tollale ko foofa tey nga tollale ko fi ma ayaama ashaabu fan ya may diri mutrafi samay malade cëw nga mooy su ma yére yu garante fi raw di aaj ci dërëm ba may wareelu ca tooli dëriya ak su ma yu garante ya maadil asimati daa ji wéy ci dogu xam ne lu ma dogu rek loola day xam axtaalu may daagu haale fii burdi sababi ci mbubam ndaw may dox doxinu ndaw waaye tali te may feeñal an niama ay xéewal alwasimata yu de way rafet ma toll cig ndaw eh, boole koog am xalal am wér gi yaram am bayre di doon su lool laa taqidin muy ragal nu waba samaane xew-xewi yi wala xawaadisoo du càggeen ay xew-xewam almulima yu de way dikkee ci yeddeel yi nit ñi ne tawatee jamono hmm. boo man xel mu koy tawat hmm. newu ci man hmm. yi daan jaaxal nit ñi ma jógee ca loola ndaw gi jeex xam-xam bi jeex kattan li jeex mag gi dikk rappite dikk muy njàqare gu doy waar fala woon na karban su fekkoon njàqare mutlifun aji halage la su fekkoon jàq day tax nit far dee la talibtu kon ma halaku min kurabi ngir samay njàqare al muqiima yu da way sax kon yaakaar naa war naa dee la aw yubtada wala déefi jot hay sun dund mada boobu wéy la fa dadu kon jot ko moo jëtee sama bakkan alkarimatu bu daa ji tedd su fekkoon nit dafa maa def pexe ba démbam delsi kon man danaa def pexe ba suma démb delsi su yeboo ma dee sax waaye dégg moom dana des aw yuftadaa wala dee bi jot ay sun dund madaa boobu wéy na su fekkoon dund bu wéy nit mën na koo jot ba mu des la fadatu kon jot ko mooy jot dund booba moo jëtee sama bakkan al kërim bu daa ji tedd fal mootu dee xayrun moo gën lil fata ñaan waay min ay sihi ci dundam xaysal bahimati dunda bahima ndax dafa am dundin yoo xam ne dee a ko gën te moom lay dund lay dund moo tax su fekkoon pexeem démb des yi doonte damay dee mu des yi itam ma dee ci lu jar moo gën suma dund tey bi xam ne toroxaande la waaw ma kuntu ahsibuni ahya ila zamanin yusiu bi fii abdun mahmud man foogoon naa ne jamono baa mooy yàqoo ba jaam buy cëpp-cëpp ci kaw nit ñi ñuy ko bàkk du ma fi fekk loolu ñaanu ma yàlla mu fekk ma fi ak lu ma doon bëgg ba gudd fan yàquk jamono gu àgg foofu loolu ñaanu ma yàlla mu fekk ma fi sena gu baax waaw <laughs> ma kuntu ahsibu ni ahya ila zamanin yusiu bi fii abdun wa huwa mahmudu loolu <laughs> loolu xalaatu boo ko woon waaw nag loolu mosuma ko xalaat ba gudd fan neex na waaye jamono yàqu noonu man ma bokk ci ñi fii ne su muy fan loolu taxul loolu taxul ñaanu ma woon yàlla loolu xam ne taxtaaduhoo dana ko xomat buratu saxaar yi nos kaag toroxaande ilal adimati jëm ci musiba wu mag wal hadima ak tooñaange muy dund ci kaw kilifteefu ñu dul dara mm-hmm. ñii def coom lu leen neex wa yara muy gis asiban gaynde yi mm-hmm. ndeg ment yi mm-hmm. tanoo suhaa da leen jottale ko mooy da jël ay di diban loxoy bukki al almustadima yëre way dikkee ci yeddeel gis nga ko bu baax suñ demee ba nga ne gaynde mooy teg loxo bukki mooy teg loxo gaynde hmm. ah, daja def lu hmm. ah, ah, ko neex ah kooku kay daanaka ku yabu dee rek ah adduna bu yàqoo ba nga xam ne yëpp ku man rek moo fi ne hmm. ku yabu dee rek ku yabu dee rek daanaka waaw ida hayara taiya bil buxli maadirun maadir bu ñemee toog naan ko xaatimu nay waxay waxayara xussan bil fahahati baaqilu baqil naan ko xusu man laa wax wa qaala suha li samsi anti saxiratun biddiwu suha naan ko jant bi yaa ko tuuti wa qaala duja lil badri daw uka afilu lëndëm naa ko weer wi amoo ah, da ngaa suux lëndëm naa ko weer wi da ngaa suux mu ne bu loolu amee fa yaa mawtu zur inna alxayaata damimatun wa yaa nafsu jiddi inna dahraki afilu <laughs> waaw waaw su fekkee yow ku la man rek moom moom mooy dox yow bu dee rek waaw bu dee doo bokk ñu toroxal léegi ndax ku fi ne day torox rek waaw yow bu dee rek yow ku la man rek bu dee loolu rek la il bëgg ku la gën rek bu loolu ko yow bu dee rek waaw ku dee doo bokk ñu toroxal léegi te nag torox moom dee ak gën waaw waaw torox moom dee ak gën innal ma nii yàtta inde sulli xindiibi mu ne bu dara lu mooy torox dégg nga jëm suukar la yéel te kontaan rek waaw torox rek de bantu suukar la yéel nga kontaan rek mu ne wasam bu bàkkaar bi yëpp lil ayaami fan yi la yëpp nag jamono la lawla su umuha su fekkoon dut gaaf ak kon lam tam bu du siimatun jikko bu rafet jamono bu amuloon gaaf kon mbaax du fi tumaraan waaye dafa mel ni jibee du ñooy loru ër bu ne rek wala wi taqaamat buñ ñoom fan kaanat nekk ala wàllu mbir yi fiyaa ci fan yi mustaqimatan daa ji fi wane su fekkoon borom xam-xam bu jox cëram dëgg dëgg dëgg dëgg la xam nga lu dox diggante boobu muy yelwaan hmm. muy wëreelu de laawaan hmm. de dund ci yu soof yi neexal yu soof yi hmm. mu ne waaye yàquk jamono la yàquk jamono suma inna xabarahoo topp soloom namaa yokku na ilal waali jëm ci waali ji su ko defee mu ne waxtaan nag xibaaram siiw baax gi ci kilifa ak dëkk bi fa malaa mu feesal faahu gémmiñam bi la aali ciy wurus yàlla def mu jox ko lool wasaamahu mu toggu ko mooy mm-hmm. mu sàkku ci moom ayan dawiya ba mu tappu xaq mm-hmm. ilaa saihi jëm ci baljatam mooy ci wetam mm-hmm. wéyaliya te mu méngoo diwaanu insa ihi diwaanu insa am mu ko dama bëggoon daal nga toog fii ci suma wet léegi nag laaj nañu ko fu mu dëkk leeral na ko ah ñi di ko waxtaanee ba mu ci kilifa ak barab bi ba ci ca àggee nag la ca xew moom la lay jàngal mm-hmm. mu ne summa inna xabarahu topp soloom ay xibaaram mm-hmm. nama yokku na ilal waali jëm ci mm-hmm. waxtaane nañ mbiram ba mu àgg ca kilifa dëkk ba fa mala mu feesale faahu gémmiñ ak abu seydin billa ali ci may ba mu ko defee jox na ko bu baax a baax woo ko jox na ko teral ko comme borom xam-xam wasaamahu mu togg ko mu abu zeydin ayan dawiya ba mu tappuhat ila ahsaihi jëm ci baljatam liya liya ngir na mu méngoo diiwaana insaihi diiwaanu insaam mu ne ko dama bëggoon nga ñëw ma fal la ngay liggéey ma jox la liggéey mm. lu jëm ci wàllu kitaaba nga jiite ko mm. waaw lu jëm ci wàllu mbind nga jiite ko mm. waaw dama la bëggoon fal dama la bëggoon daal jox liggéey nga nekk fi ñu méngoo mbiru kitaaba nga jiite la wasaamuhu mu togg ko ay yan dawiya ba mu tappaat ila saa yi jëm ci barjatam wayaliya te mu méngoo diwaana insa yi diwaanu insa faasabahoo doyluloo ko hmm. alhiba u mayga hmm. wasalafoo tere ko alhiba u bañ hmm. ani wilaayati walis fal mu wax ne moom teraanga jiñ ko defal doy na ko waaye affaire u fal moom lañ ko ci jéggal waaw mooy nag teraanga ñoom doy na ko waaye affaire u fal nañ ko ci jéggal qaala wax na arraawi aji solo ji te mooy haari xaalis nee na wa kuntu nekkoon na arabtu de xamoo de sajarati bantab garabam qabla inaaye samarati ci njëkk ñor ak meññetam mu ne fekk na man balay wax xamme naa ko na yàgg naa koy xam wa kittu jege ñoon naa unabbihu de heete hala ulluwi qadrihi ci kowe darajaam qabla sinaarati badrihi ci njëkk leeram bi muy wax ak gaañ yi hmm. te gaañ yi di tontonteeg moom hmm. te leetar bi génnagut hmm. tuuti kon may leen kii nag man mi ko xam du ma weeranteeg moom ci li wax yéen bu ngeen ko xamoon du leerante weerante moom ci li mu wax ndax kemam bëriwut ci jamono bi tuuti kon mu wax ne loolu mu wax loolu wa kittu jege ñoo naa una bihu de heete ala olu wi qadri yi ci kowek qabla istinaarati badri ci njëkk leer ak weeram fa mu junj ilayya jëm ci man bi imaadi jafnihi ci mel xatak mbatam bëtam an la ujarrida ba den may bocci adbahu jaasim min jafnihi ci mbatam mu ne mu pësin ma pour bu mu wax dara mu pësin ma pour bu mu wax dara sallam bu baax a baax waaw la wax la dégg xaraje ba mu génnee ba tiinal xur ji fees ci mbuus ba mu génnee ca barabu waali ji fekk jox nañ ko ba mu xam lu bari mbuus gaa ngi fees dell wa fasala te mu facci fayisan daa ji bil fur ji ci fajug haajo furju mooy lu mel ni gañe ci karta mooy ngañ may loolu la xaw a niru muy génn fekk tukki mi am na na jaax bu baax bi loolu amee sa yaxtuwoo bejante naa ko dama koo gunge xaadiyan mbiroom madaaji faj xaqa riayati xaqi xàddoo ndax itam na suma diggante moom loolu la lay sa yaxtuwoo gunge naa ko xaadiyan mbiroom madaaji faj xaqa riayati xaqi xàddoo wallahi yéen taraajiyat la hoo ñaal ko ala rasul wilayati ci fëgg fal ci li ma ko gunge it maa ngi ko naan yow nag ma yow daal dëgg dëgg ma ko ñu xelal te coono yi nga nekkee mënoo toog fenn te yaa ngi fii ëllëg yaa ngi fële léeg-léeg nga jaar ci métti métti métti ñu jaaral li li nga xam ne ni konoon danga am loo jàpp sira nga ci daal nga ko jox gannaaw loolu laa ko loolu laa ko doon yedde daal ma daal dama bëggoon nga jël ko daal loolu laa ko fa arada mu du mooyu mu tabassiman daaji muuñ bi ma ko waxee loolu dafa muuñ waan sada mu sadda mu taran ni man daaji randantalu muy wéy de neexal naan la jawhul bilaadi si su fekkee yemu leen xam-xam ndax moo la ko ëppale léeg-léeg bañ loo xam ne la ko tax a bañ doo ko de xam su boobaa nag yow bi nga xam yow rek boo bëgg a waxee ak moom ne na nangu loola du yomb dëgg-dëgg nga xeeti fal yi coono bi ak ñàkk liberté gi moo ëpp li ci doo bànneex te xam na min moom boppam ni su xas ni min moom boppam daanaka yu bëri du ñu mën a téye yu bëri du ñu mën a téye waaw nde fi mu ne ku bëggoon ne wax xëy na borom sàngam ah ne de ah ni su xasee min moom min moom boppam daanaka daway lay bëgg ah man mii di wax ak yow lu may ñàkk ñàkk solo ah ku ne ma xëy na borom sàngam ah mën naa demee neneen ku ko bëggoon ah mën naa demee neneen <laughs> mën naa demee na ah. miin moom boppam moo tax ah mu ne la jawwul bilaa di dëkk dëkk yi maal ngi fii ëllëg maa ngi fële boole koog aw ma dara loolu ahabu moo gën a topp elee jëm ci man mel matrabati moo ma gën a ñaan mi yaa xamee pala sangam mm. yow la buur bi jox nangam mm. li am na wulaate ngir naka buur yi mm. lahum ñaal na leen nabwatun cong wa maxtabatun ak yettange gu xam ne yàlla hakiman ñaal na ko maxtabatan ci yettange ndax buur moom buur la rek mën na la baaxee mu neex waaye fi mu la baaxee ci saa si mu jëfandikoo doole ci sa kaw ekkati fas yu foor jox la ko jox yow lañ ko jox dit bu gàtt ñu ko daane nañ loolu ba leen yomb trop wama fihim nekkul ci ñoom man koo xam ne yarut bu dana mu defer asaniha ku xam ne day teral nit rek gis ne xas naa ko teral dugu ko toroxalati loolu amul ci ñoom de wala man du càggeen koo xam ne yu sayyidu dana mu yëkkati maa li nga xam ne ratta boo taflante na ko wala kuy samp pour nit ki na dëgër rek kooku du seen mbir de moom daal dañ laa wóolu seen xel day daal ci yow ñu texee la buñ gisee luñ xamut am nuñ defee rek comment fii yéen nekkul ci ñoom man koo xam ne yarub bu dana mu defar asani a njekk wala man du càggeen koo xam ne yu sayyidu dana mu yëkkati maa li nga xam ne ratta boo taflante na ko fala yaxda an ka bu lay nax lu moo xoo saraabi melxat ak njóono seen ko bu mu nga teg ko ndox lu ko niru niru duu ko xam ne mbir yoo xam ne dégg ñii ko tudd bu mu nga foone ndax rek boo ca duggee dafay neex wala taati bal di dikkal am mbir ida mastabaha bullantee te itam loo xam ne xamaguloo ko jarul nga de bàyyi li nga xam ndég moom wala mu ne bala nga yóotu da ngaa dëgg foo dëhër waaye boo dëggee foo dëhëru bëgg yóotu ba nga dëgg rek ak yow jël nga jaay jëlee rek <laughs> bala nga yóotu da ngaa dëgg foo dëhër li nga xam moom bala nga koy wala bala nga yóotu leneen na nga ko teg ci sax mooy indil ak gune day ma di def ci pays lañ ma damay laaj nekk gi moom ci ware ma ne ko ñu yoo xam ne ma ne ko ñu la liñ xam daal mu ne bu liggéey jotee nañ bokk liggéey rek bu jàng jotee ñu bokk toog ñu naan loolu lañ xam waaye affaire sax ma naa yoo xam su ma ci duggoon xamal la may fekk xamal lu may fekk te lii moom xam naa dañu mën a wéy su moo tax man yooyu dugguma ci joxeel nangam joxeel nangam yooyu yooyu mm-hmm. man nangooguma ci dugg ndax lii moom lii moom xam naa ci mën a wéy mm-hmm. te nag su ma ci duggee mm-hmm. xamul ma ca fekk waaw mooy affaire yi moderne moderne yi ñuy wax man man du ma ci dugg ndax lii moom xam nañ ci mën a wéy ñun ñëpp xam nañ ne mën nañ ci wéy waaw suñ ko bàyyee nag lu ñu ca fekk moom lañ dul xam fala yox daan ka bula nax lu ma wax saraabi mel xatak njoonu wala taati ba dikkal amran menn mbir ida mattabaa bulante fa kam xaalimin bari na aji gént sarrahoo ko bégloo na ko xulmuhoo géntam wa adrakahoo te jot ko arraw ha tiit laman taba ba mu xeexoo nit léeg muy nelaw gént mel ni mu ngi ci tiraange ju rëy rëy bu xeexoo loxoy neen kem lay gis ah dafa mbir yoo xam nag daanaka tanewul gént ah man baata ban fi mulkin yusarru bihi fa innama baata bil aalaami maxruura tam mit ibnu abbas buñ ko tëjee kaso la ko doon wax mu ne sa gannaaw sa gannaaw ku doxatee mu ñëw nga xam ne dox na mbir gént rek la baka baax dëkka fi mulkin yusarru bihi faka an fa fa innama baata bil alami maarura xalila bu daw yaram na bu ko yër dan ko yëram trop benn bi su tabaski ji la koy wéy nag ana fi ma mada kunta fil ayati masrura fa jaa kal hendu fi aw mata masura boobu yëpp da nga koy yëram trop sax. te nu ne noosee na ko jaay nu ne noosee na